allahu min kulli karimin akramoo maanaam noonu xaaral noo takkarmoo damay faral di wax ni wax di waxaat du bari wax wax ji joxe gut la may sa sekk mii moo seede woon sëriñ Cheikh Béthio Thioune ci màggal gi ni jëf ji muy jëf ci màggal Serigne Touba moo wax ni ku man ci màggal gi yaa man seex bee man ci màggal gi seex bi nag jëfam day loom loo jëfi gaañu baax ndax bi nga xamee ni ñëwagut kenn waaroogut waaye bi xar yii ñëwee nag mu jëbal si ko seex Sidi Maxtaar ñëpp a waaru waaru booleeg yéemu waaye ku mu yéem da ngaa umpale Serigne Saliou ndabaroog Serigne Saliou day gaañe na ko ñëpp bay xel ku jàpp dana dem ku jëppul dana dem te waxoon naa ci màggal gi ni Serigne bee ko ni yow de bu gaañee yeewu duñ gis sa pënd wallaay cuun kenn du gis sa pëndal bala ño xam sa mbir ak yamal xiyaamat lak bar ku man fi ci jëf ya man bo lëgee may wax ni batin kenn du ko jaamu yalla des koy ñakkal yalla te cheikh bi moom man ci ñakkal yalla kon gaay nan ñaanal cheikh becco mu yàgg fu tànd ak wér li mu yéene ci yoonu islam yoonu murid yalla nako def tànd ak xelam mom kat cheikh sidi xel lim ko baye xel nak moy jëf señ sidi nak du wax waye day jëf ndax damay wax ni wax ju bax ju ne jëf ju jëf ju rafet ju ne day ànd ak wax ju baax tay ndegeem ñu ñur dara ñoy wax ba ñu gëm leen sakkan ak Cheikh bejo koku man na wax ndak lu wax jëf nako ko barke Sëñ Tuubaa kon lolu koku eh, kenn du ko contesté xanaa di ko ñaanal yalla mu yagg te yeggale ku bëgg Cheikh bejo Serigne Saliou nga bëgg waye sëñ bi nan ko def niko yalla def mu noppal nu suñ ko deful niko yalla def dañu son way Cheikh mom dem na ba salaamu alaykum wa rahmatullahi yalla ñepp am jamm lim defal Cheikh Sidil muhtar ci tamaski gi ko am alal te do am xol ba cheikh bi jël nga ndam li. ma ngi fallu loy euh nek fi ci bir keur cheikh Sidil euh jëf ji le ku ko gis xamni borom xol bu yaatu mo meuna a jëf lii Serigne Cheikh bejo nak li mu def ni dundi gulet ndax li dekul euh mom ku fi Serigne Touba rek gis nga ñaan borom yeggale fa mu jëm. wa Serigne bi ki de moy Serigne Samba xey mom El mbake mom Cheikh Sidil waye xanaa bëkki wal ci jëfam ji ndax euh, jëf ji ku ko gis euh, euh, sa xol sedd ndax li mu Serigne Fall wax léegi rek kenn duna guléet moom nag li ko Serigne Cheikh Aliou Mbacké déeyoon ma nga ca te ku gis li sam xel war nga koo ñaanal mu gudd fan te yàgg fi ndax liggéeyu Euh, Serigne Touba bi mu ngi koy yaatal mu ngi koy yokk moom Cheikh Béthio ñoo ngi koy ñaan aw fanam gudd ba naal bi mu naal liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko yàlla kattanal moog taalibe yi ànd ak doom ji xam ne moo ànd ànd ak jiital liggéey bi ñoo ngi koy ñaanal tawfeex ak njabootam Cheikh Béthio yàlla na fi yàgg te wér moom liggéeykatu Serigne Touba la soldaaru Serigne Touba la waaye ku bàyyi xel Cheikh Sidi Moukhtar la kon ñoo ngi koy ñaanal aw fanam gudd jërë ngeen jëf mbokk yi ñu wax asros bilaa min saan rajimi laa hawla maa ngi tudd Alhaji Maam Daam di jànkatu xasaat Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke di sëtu alxaaji Abdoulaye Niang bu Ndar li mu def nii nag tey jëkku ci mooy tiraanga ji mu andil Serigne Touba waaye dafa xam ne rek li mu yor lépp Serigne Touba ko jox moo tax mu dellu Serigne Touba njëkkoon toll nii ah, tey nit mën naa le ba noppi yàlla def ko mu yor xol bu ndaw waaye bee ci lu muy barile le ba xolam baa ko ëpp moo tax fu mu defee rek ñu yëm ko nit mën naa am alal joo xam ni day ëpp xolam waaye moom wërsëg wi ko yàlla jox xolam ko fuuf ba lu mu joxe ñëpp yéem ko waaye moom lu tuut lay doon ci moom. bu fekkoon la tàmbalee Ndakaaru ba Touba gii mën na leen mën na def lépp lépp lépp lépp ay xar ak nag ak gëléem am na xolub jox ko Cheikh Sidi Muxtaar ak njaboot Sëñ Touba gi. koy ñaan ca barkeb Sëñ Mbàkke Madina li muy def nii yàlla moo ko ëpp ëppale fuuf ab xol moom mi ko jox ba mu koy joxe ñaan na ko yàlla joxe yàgg joxe te la taxoon mi wax jërëjëf Sëriñ Saaliwu di ko way di ko dox di ko dund ba ba lii am tey lee taxoon kon jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou Mbacke bari sa kaye jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf jërëjëf Seex Saal Mbàkke baari sang jërëjëf Sëriñ Saaliw jërëjëf Seex Saaliw jërëjëf Sëriñ Saal Mbàkke baari sang